mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point comme chaque fois ñu ñëw ak ci seen revue de l'actualité nekk li nga xam ni moo gën a fës ci xibaar yi a xew li ci gën euh, xam ni mooy Yaxam Mbaye ñu ñuy wax ni dafa daal di feebar ba ñu daal di koy évacuer fa li nga xam ni moom mooy France loolu dinañ ko gën a ki nga xam ni moom mooy Youssou Ndour tamit euh, coow bëri na ci moom ñu bari di naan dafa daal di arrêté li nga xam ni moom mooy carrière am lu am ci biir dinañ leen ko wax ci biir seen revue de l'actualité suñu ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ni xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di koy doore ak défilé 4 avril bi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall daal dinay xam ne ni ren aussi du am comme ni mu ko amalee woon euh, daaw daaw aussi li nga xam ne moom mooy coronavirus tere woon ba défilé bi am ren aussi euh, feebar bi jugugu fi ba léegi moo tax ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall daal di daal di décidé ni euh, li nga xam ni moom mooy 4 avril du ko amal dina def nag benn cérémonie bu ndaw fële nga xam ne moom mooy palais de la République waaye ci lay yem ñu daal di wax ci polémique bi nga xam ne fan yëpp ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux yi di bàyyi xam ne euh, Youssou Ndour euh, bàyyi na ko euh, waaye ki nga xam ne moom mooy yu du mbalax ñu ñuy wax ni dafa daal di mettre fin à sa carrière ginnaaw nag bi ñu déggee coow loolu la dégguñu kenn ku jege ki nga xam ni moom mooy roi du mbalax ñëw dëggal ko wala mu weddi ko maanaam information boobu le kenn amu ci lu leer lu ci mën a xam daal li nga xam ni moom mooy coow loolu mi ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko waxtaanee ñi naan dëgg la ñeneen ñi naan li nga xam ne moom mooy poisson d'avril la bëri sax lol lañ ko jàpp ki nga xamni mom moy mooy xam mbay ci mom lañuy febar, wax moom nag eh, ko di dal febar bo xamni metti na lol daal di koy teural ba mu tax ñu évacuer ko fele nga xamni eh, mom moy France ginnaw nak ay polémique bu bari manam ciow lu bari lo xamni top topp na ki nga xamni eh, mom moy mooy xam mbay ginnaw ci lolou ñuy dégg ma fele nga xamni saxa waron na fa tew di émission ndumbelaan ci jamono ye mu jufa wona tew nak malaise go xamni amna ko li ñu xam nak ci febar bi mom moy maladie cardiovasculaire la manam febaru xol lolou lañu mën a xam ci li nga xam ni moom mooy feebaru ki nga xam ni moom mooy Yaxam Bay nekk alliance euh, pour la république di APR nekk aussi euh, directeur euh, quotidien national bi nga xam ni moom mooy le soleil ñu daal di dem fële ca Touba ki nga xam ni moom mooy Serigne Mountakha Mbacké daal di fay def beneen geste geste boo xam ne nak ñu bëri ñi ngi koy rafetlu daal di yëkkati trente millions de francs CFA daal di koy def ci ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo feebar amee li nga xam ni moom mooy insuffisance euh, rénale li nga xam ni nag moom la joxee dañu koy utiliser ngir gën a mën a euh, jël en charge ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar boobule di insuffisance rénale leneen ci information di nomination ki nga xam euh, mom moy Issa Sall loolu bokku na ci li gëna marqué li nga xam mom moy euh, actualité bi ci semaine bi ñëpp diko waxtané waxtaanee surtout fi nga xam mom moy euh, réseaux sociaux yi ki nga xam nak mom moy Issa Sall jité won pure ñuy dégg ni sax dañu ko daal di jëlee foofu nga xam mom moy parti bobu di pure légui nak daal di na rejoindre ki nga xam mom moy président Macky Sall mu daal di koy nommé ministre conseiller danaka loolu indi na ciow lu bari fi nga xam mom moy réseaux sociaux ñëpp diko waxtané nak ndax go goo nomination boobu bett na leen ko ñu daal di jeexale ki nga xam ni moom mooy Mamadou Ibra Kane nekk journaliste fële nga xam ni euh, moom mooy immédiat ci chronique boo xam ni euh, doon na ko def moom nag mi ngi doon wax euh, ci audience bi nga xam ni Serigne Mountakha jagleel na ko ñi nga xam ni ñoom ñooy waa mouvement citoyen di Dame Mbodj ki la nga xam ni moom mooy Clédor Sène ak Assane Diouf Clédor Sène ak Assane Diouf bi ñu génnee prison xam ngeen ni yàggul loolu waral ba ki nga xam ni moom mooy Mamadou Ibra Kane daal di wax ni ñoom waruñoo am audience ki nga xam ni moom mooy xalif général démouride kàddu yooyu nag am ñu bëri ñoo xam ne neexu leen ñu bëri nag di ko nakarloo di wax ni ki nga xam ne moom mooy Mamadou Ibra Kane warul di ngata li nga xam ni moom mooy décision xalif général des mourides loolu nag wax na ko ci chronique bi nga xam ne dina ko def li nga xam ne moom mooy immédiat mu daal di nag bëri polémique lool voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tay ci seen revue de l'actualité nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës ci xibaar yi fi jot a xew leen di comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti point com ngir dara bañ leen a raw ma leen di jox dig daje beneen yoon ak yeneen xibaar